salaamaaleykum sunu mbokk internet Sénégal 7 dal leen ak jàmm seen rubrique seen acte du jour Covid ak variant delta si màggal Touba dina am ki yor kàddu xalif général bi di Serigne Bass moo ko xamle. waaye nag nee na taalibe yi nañu sàlloo ak geste barrière yi loolu ndigal la ci biir Sénégal set lañ koy xamee vaccin anti Covid yi mbaa am nañu efficacité lu jara laaj gannaaw ba cellule de communication bu ministère de la justice xamle ni seen jëwriñ ji di maître Malick Sall dañu ko testé positif gannaaw ba mu vacciné woo démb nag lañu de xam ne dafa daal di am corona maître Malick Sall nag nekkul moom dong moo nekk ci cas bi ay Sénégal sénégalais yoo xamante ne nii dañu jël vaccin bi ba noppi daal di am corona teg ci nekk sax ay cas grave donte vaccin yi ñi ñee ngi koy jël terewul feebar bi mu ngi ci biir dëkk bi waaye lu ni mel taxul nag ñi nga xamante ni nii ñoo di sénégalais yi daal di bàyyi lii nga xam ne moo di vaccin yi si diiru 6 jours 91 378 personnes ñoo daal di vacciné wu. lu tax taux bi daal di toll si 714 318 vacciné la ñu am ci biir Sénégal. ñu des ak épidémie bi tey jii ci 3164 tests am nañu 884 yoo xamante ni dañu am corona 745 yi ay communautaire lañ ñu daal di am 11 décès 12430 nag patients ñoo nekk ci. centre de traitement yi ñu jàll ci waxi kilifa gannaaw ba waa leeral daal di génnee démb benn vidéom ne dafay nekk ci benn dilu visa Y'en a bi yëkkati na ay kàddoom daal di ne ki nga xamante ni nii moo nekk ci vidéo bi mu doon wax ak moom xaritam la te ba ñu nekkee xale la ñu commencé ànd ki nga xamante ni nii moo di xarit bi nag doom ji moo daal di feebar mu bëggoon ko yóbbu extérieur waaye ak li nga xamante ni nii moo di feebaru corona bi mbir yi dafa xaw a jafe moo tax mu daal di sollicité woon li nga xam ne moo di eddam ki nga xamante ni nii moo di kilifa nee na tey ci 18h dina def conférence de presse pour gën a yaatal mbir mi. lu tiis benn ndaw Labé Ndiaye doon jaay ay pièces détachées lañu fekk ci ginnaaw Arena Tour fële ca Diamniadio ca wetu autoroute à péage bi ñu daal di koy rendi sànni ko foofu muy lu doy waar ñuy laaj rey gi nag xeñ lay dagg ña dëkk ci Grand Yoff nekk ci njàqare démb ci morgue bi nga xamante ne nii moo dem mosquée Arafat lañu indi benn koor corps bi nag dañ ko daal di dugal ci biir benn mbuus maanaam dañu enveloppé cercueil bi ci benn mbuus ba pare daal di koy wàcce ci morgue bi loolu daal di leen tiital lool ak fi jamono ji toll ak feebar bi ba tax ñuy laaj kooku ñu fa indi kan la ak lan moo ko dal waaye nag suñu su sukkandikoo ci Seneweb li muy xamle mooy néew bi kat néewu rakk benn ministre la te ci sérieux la nekkoon